ay sëñ Tuubaa bàyyi fi njabootam sëñ Modou Moustapha juróom-ñeenti at la am sëñ Fallu juróom-ñeenti at la am Cheikh Mahamadou Lamine Bara mi toll ci juróomi at sëñ Tuubaa dalal ko jàng bàyyi fi njaboot gi yépp laxasaayu gan ñi ci tabbi ci biir noonu yoo xam ne seen yitte yépp mooy ko dem doo del siwaat mu génn dëkk bi génn réew mi ba noppi ne dalla alladi qad zanna nii asira xayru la si yasiru asira ku jàpp ne dañ maa jàpp da nga réer maa ngi kiy yombal lu jafe bis dana ñëw fu neex nit nodd fu neex nit julli fu neen di toog tudd yàlla te jamono boobu muy am kenn ni mu ko def loolu ma tax a jóg ma Cheikhul Khadim juróom-ñetti at yu manqué fan yu néew luñ man teg ko luñ xam wax ko sëñ Tuubaa nee na lu dul ruugu génn daj naa ko daj naa loolu kenn di ko net laa yaxilu Ibrahima nee na yëllul kenn di ko wax yëllul kenn di ko wax tey nag yaa ngi jalaañoo ndawal gaa ngi xéewale sëñ Tuubaa daana nam mu ndawal ba buunu nee na du ma am na ma mus ma mus as jën rek noppi bëgg tagg yoonent bi kaddu yalla gi dalay sama ko mu raw asaman ma jaay jën mag jaay jën du bako mus neena amna bis ma mus fa muuraake mu tax sama deng lañ ma galax ndiku suukar sa saf yalla da ci saase dana ma boo bay wut mus lu neex li dutoo gis rasulullah señ bi ne hasitu fil hin ala jaxli min al mabi'at ci reej wo kep nga mus ko ñu ne dutoo gis yoonent bi nee ma dogu ci saase ngir bayyi bayyi lepp lu jëm ci dugub neena yalla dama boko bayyi wenn fep du sax ci kaw suuf mu sujj xob ay ay xob yi garab di ko di nga ñi di tok ci all bo xamne ne garab yi bu wàccee ci kaw bu la dagge mo raw tookari jaan da nga di jaan bu la bant jame mo raw da nga di jaan ndeñ ment ya fa nek di dox bu la waré mat la da ngay nelaw do yew te dañuy sam seigne touba bam fess te yàlla bokk ak mom li gëna neew néew ko yam bi seigne touba ne bi yalla lay signé jox yeneen mu signé gaay jital bamba bamba da na ma ñaar timir nat yu juroom ñett fuk ak juróom boo ca yanu li gëna neew ci daw sa yo ko defé ma xacc muy raf ba de kep la ñame bo rafé ma xacc lula mat nga raf ma xacc sëñ Tuubaa ne dañ may samba fees dell waaye du dàq du faxasu du wokkut danaan sama nib jàngi rek nee na bi may liggéey liggéey bu ma liggéey ba nopp ba di ko yit yàlla dama koy boole di ko kañ ak di ko tatagal yaasal wujudi wal baqaa'i wal qidam yaasal muxaalafati xus min al qidam xoolal yooyu kañ mi kañ suñu borom ku màgg ki ku tedd ki ku baax ki borom lépp jëf jàng mais mu yabal bakkan mu xool ba xam am na ci wàll adduna xool bànneex xool seytaane xool ba dara kenn amatu ci sa wàll sama borom nangu liggéey bi lépp ba mat na ma loo jëf nangu naa ko sëñ tubaab fàggul ci képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah anna muhammadu rasulullah nga xam ne xàmmeewul ku ko ca bëgg xàmmeewul ku ko ca noonu xàmmeewul ca lenn moom bëgg na bu desee ci réew mi ñaar dal nu ijaadu juuxan ilaa qawmi saadatina sax yi ma delloo ci réew ma nay texeeg ñëpp suñu borom la nangu naa wala tax fi naa yow ma jamal xalq niiraana bu yomal xiyaame bu demee ëllëgin ba jaam ñëpp daje bu kenn ku ma bokkalum réew nga yaakaar rasulullah di dem sawara hmm? manquém ndox ak sori ak metti moo taxoon tubaab yi lañ ko fa yóbbu dañ ko yóbbu ceen sëñ Tuubaa dem ceen boobu mag ni juróom benn nit lañ may sëñ Tuubaa di ko gis par bis dem ceen da ngay mel ni kuy wut passeport wala ngay wut pour nga am laissez-passer pour mën a dem ñu soxor bu leen sarax dong ngay sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa tere leen yalwaan am na bis yoo xam ne mag ñi dañoo xiif ba tëdd mënuñoo jóg sëñ bi ne bëreet jën daal di wëpp mbubb ma ràbbale ay bant bam mu dëgër takk ko ci biir takk ko ba dëgër ne leen xiif bu rasul lay xiifoon makk ak mbër na xiif naa bu ñu toll am naa lu may dëgërlu lu lekk ak naan te amul lu mu takk ay bant la takk ngir ngir dëgërloo ko mu Cheikhul Khadim ak bokk yi sëñ na baaxul maan ala kaddin bada lii xabla ala rëbal mu li ma am ba ma ko daan am coonaa ko ji bakkan mayewul dara bànneex mayewul dara li ko war a neex mayewul dara lu waay bëgg da ngay xam na nga koy jaare ak fa nga koy sàkku ba nga dee lay dégg ñuy wax ba léegi déggoo fi benn bisu noos déggoo fi bisu bànneex déggoo fi bisu moom boppam lépp di coono ngir noonu mu liggéey ko ba mu daj nag nu di ko fooyee di fooyee sëñ Touba ku jóg ñu ne la yaay sëñ Touba ku jóg ñu ne la yaay waaja jàppe sëñ Touba matériel jàppe sëñ Touba nangam xamatuñ fu nu jëm xamatuñ fu nuy jaar ay waay Cheikh Issa Dieng da koy xool ba yàgg mu ne ko ak neexoon ma am diggante asamaan ak suuf ba mu fees ak alal sëñ mi ne ko loo si jublu mu ne ko di la ko sante sëñ bi ne ko taxul a jot sama àq de mu ne ko kon nees di def mu ne ko yëg na naar bi fi indi xorom si rek boo leen yëgee ne man a rek yéen a ngi may sant fàtte nañ ne moom lu nu neex la ñuy wax lu nu neex la ñuy def te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na koo xam ne loo yëkkati di ko sant muy yëfam la nga koy sant mooy sa ci bëggam nan sa ci bëgg suñ Tuubaa gi buñ soppi yëf yi buñ changé yëf yi buñ adduna fàbbi sëñ Tuubaa addunaa karan-karan yi tuxutoon suñ Tuubaa jóg léegi buñ demee ba léegi ay taxawaalukat ñooy représenté sëñ Tuubaa ci adduna ana sëñ Tuubaa kon kenn du sëñ Touba sëñ Touba du kenn sëñ Touba dafa beru